wax naa la plan planification mm. donc j'ai pas le plan la donc la question est difficile ma mm. peut-être que spécial euh, on a signé mm. mais il faut les besoins globaux de la ville de Touba en matière d'assainissement nous voir maintenant at mu lan de jukki de ko de patience toxaat xam ne kat lii mënuñ koo defandoo waaye nag ñu ngi koy def ndànk-ndànk te bu yàlla dimbale balaa yàgg dana jeex euh, balaa ñuy génn si assainissement bi euh, sëñ bi euh, mbirum assainissement xam dañuy gis ne Touba très souvent dañuy faral di jël seen bopp ay initiative di investir ci wàllu ay infrastructure di répondre a des besoins ponctuels yu soxal gox bi ci wàllu assainissement ni ñu gisee ne sëñ bi par exemple orienté vers l'université ci wàllu xam-xam assainissement nekk aussi lu lu jàmp lu am solo Touba fan la ci taxaw ci wàllu engagement

Magal Touba di générer lu man 250 milliards loolu bi xaalis donc état bi am na loo xam ne daf koy fay delloo parce que Sénégal ci la bokk te kooku devoir la loolu lu mën di am état da ko mm-hmm. mooy leneen li yi ñoom danañ koy defal seen ne Touba ci kanam ak yeneen daayira loolu aussi ñoom itam kooku c'est une longue tradition boo xamante ne bii depuis Serigne Touba ba muy ba muy waajal jumaay Touba ba dajale woon

Euh, mënut ñak talibi également di ki def euh, seen loxo mais des investissements yu lourd yo xamante ne bii jàpp naa ne état mom moko gëna atante a état aussi mom la gëna war. parce que parce que fo def fo def 23 milliards. Mhm. feeñut lolu bu ko nit bëggoon di en charge dina xawa a dis tuuti. Mhm. Hein? donc lolu lolu mooy sama gis donc état bi nu continuer def limi def selon un plan bien défini bo xamné de concert avec les autorités donc religieuses population yi xam ko ba nit am patience tok di xaar. sëriñ bi université bi bu ñu yàlla dimbalee rek mu pare bu noppee du ñàkk mu dégage yeneen priorité moom moo xam lan ma nekk priorité en ce moment suba aussi ñun ñëpp ñu ànd maase jubluwaat ci loolu mais c'est sûr que ndox mi lay nekk wala assainissement alors kilifa gi leneen loo xamante ne mu ngi ñëw mooy tabaski bi maa ngi wax sànq nombre de yi nga xamante ne bëri na naam bu dee ministre euh, de la santé mi ngi ñaax nit yi pour ku nekk fa nga nekk nga toog fa euh, euh, defee fa tabaski waaye nit nañ leen gisee ñu taxawee te xëy na ñenn ñi namoon seen i famille trop ndax korité bi fii la leen fekk ñu jëm ci tabaski jëm ci loo xamante ne it day drainer nit te xam nañu Touba gis nañ ne ci point yi ñuy def chaque jour bés bu ne buñ ci amul cas communautaire dinañ ci am loo xamante ne dinañ ko dégg foofu ci ci dëkk wa ndax tey dafa am euh, taxawaay boo xamante ne nii dëkk ba am na ko ngir yi nga xamante ne ci lañ jëm mu bañ a yokk kaa foofu ci dëkk bi. waaw euh, tawat ji moom fi mu toll nii ku lu mat a tiit la ci ñi xam fi mu toll dëggantaan ak li nga xam ne aussi mu ngi ko def ci réew bu ñu bu ñu xoolee en réalité kenn du xëy ba jant bi soo tàgguwuñ la koo xam wala ñoo xam donc loolu am na lu ko sabab soit tawat ji moo leen di gaañ directement. Mm. wala tawat ji teewoon leen a faju

tawat ji wax nañ ko déplacement moo ko indi lu bari. te fii Ndakaaru moom li fi am maaradi tali moo ëpp foofu donc nit ñi bu ñu fi jógee duggaat ci biir réew mi loolu la foog naa ne yàlla rek moo ñu mën a euh, suturaal ndax da nga leen di wax bu ñu ñëw wala non man ma man nekkuma ci position boo xam dama dama leen wax toog leen parce que du seen kilifa loolu moom bu ñu ko doon wax itam sëñ mag moo koy wax mm. donc man euh, man ndongo laa rek te man maa ngi nii nar a jógee Dakar

mais Touba lan là war a mën a apporter par rapport ak ak statut un plus si ko si combat. non fi jaaxal nit ñi mooy mooy mooy Dakar après Thiès Thiès Touba su ko dikk non ça n'a rien à voir à Touba on est on est peut-être à 7 alors qu'à Dakar ici les gens sont à 75 mm-hmm. donc l'olu buñ ko. mais si mais Touba ci trio bi la bokk la. non non je comprends waxin la waxin la <laughs> d'accord naa parfaitement hein? voilà li li li nga xam ne moom la Touba di apporter lu ci bari Touba def donc quand même parce que taxawaayu sëñ bi foog naan ñëpp gis nañu ñëpp gis nañ ko ci alal ju bari ji nga xam ne joxe na ko ci sensibilisation bi nga xam ne également mi ngi koy def

c'est vrai état d'urgence bi jeex na mais état d'urgence bi ñu dindi ko taxul na jàngoro ji jóge na fi ça c'est extrêmement important ñu bari dañuy dañuy jaawale ñaar yooyu loolu mënutoon ñàkk jeex parce que nit ñi fi ñu tolloon la te demoon nañ ba miin jàngoro ji aussi mënuñu woon ñàkk dem liggéey yaxantu loo xam ne moom la ñu dundee parce que fii secteur informel bi la donc mënu woon ñàkk ça c'est une nécessité donc woon dem Hein, euh, comme même man nous de ça peut-être des immunité collective je ne sais pas hein. spécial spécial mais donc en tout cas lu mata a gëstu la ba xam lolu naka la naka la ah, demee. tabaski tabaski bi xeyna na euh, lu muy indi ci nit du bëri waaye magal gi buñ ko waxé la muy drainer ci nit euh moo ëpp mhm. euh am dimension internationale. ci 5 millions de personnes. waaw 5 millions de personnes te te prévision yi nga xamantene euh, ku melni professeur Souleymane Mboup bu IRSF lu mu wax moy euh, pic bi ñu ngi ko nara am mois d'octobre ce qui veut dire que magal ga dana am bala boobu euh it ndax dafa am euh, taxawaay boo xamante ne nii dangeen koy xaar ci kilifa yi pour waajal loolu wala yéen a ngi envisager xalaat ci ñu bañ a euh, organiser événement bi Touba euh, naka lay waajalee boobule xew-xew. bon xam problème pic moom man dama ci dama ci tey parce que ñaata la ñuy wax ne ak nañ ci pic bi. Ah, <laughs> wala daañu ci yegg. <laughs> voilà daañu ci yegg à chaque fois également ay ay ay ay borom xam-xam yi ñoo koy wax. donc bon mais mais xam naa daal jàngoro mi ngi fii. daanaka kenn tënoo si kenn bisu ko yàlla jeexal dana jeex. Mm. mais nañu moytu en attendant li nga xam ne moo jëm ci wàllu wàllu magal gi wax naa ko wax wax naa ko barki dem ci ci ndigal la ñuy dox ndigal li nag moo di ne sëriñ bi la ñuy déglu ñun en tant que comité d'organisation si moom pare nañu ci côté léegi nag sëriñ bi moom moom la ñuy déglu. Mm-hmm. mooy la amoon ci jàkk yi dëkk ba ak li am ci lépp. sëriñ bi la ñuy déglu loolu nag moom amuluñ ko ci wax amuluñ ko ci ñàkk wax vraiment ñun moom la ñuy déglu. mais nit yëpp yemuñu. nit yëpp yemul mooy ne euh, bu ngeen euh, waxee ne nit yi bàyyi xel sol masque bi nañu bàyyi xel yi nañu bàyyi xel yi mhm. teewul ba tey boo génnee ci mbedd di nga gis ñoo xamante ne duñu dégg am na ñoo xam ne gëmuñ jàngoro ji waaw amul lañ <laughs> loolu loolu mooy li gën a doy waar mën nañu ñëw ci dëkk waaw mais dama yi nga doon wàññeeku na dama ne la màggal gi dama ne la màggal gi sëriñ bi la ñuy déglu bu sëriñ bi ne nañ màggal moom danañ màggal bu sëñ bi ne nag bu ñu màggal wala ñu màggali nii ñaata màggal moo fa jaate defuñu ko ci ndigalu sëriñ bi mm. ay màggal yoo xam ne màggal yu mag a mag a mag ma nga tàmbalee ci màggalu sëriñ Fallou nga xam ne gën màggal gënu ko mag ci réew mi donc foofu man wax naa leen sëriñ bi la ñuy déglu parce que ñun li ma la wax léegi rek ñun xam nañ ne li gën ci ñun sëriñ moo ñu gën a xam kon yu mel noonu euh, ñun di ci am xalaat wala même ñu ko ci suggéré dara sax loolu dañ koy euh, duñu ko def parce que sëñuñu ko moom la ñuy déglu moom nag xam na li muy def donc décision bu mu jël ñun dañ ci ànd saisi d'arme am fu mel ni euh, Touba loo xamante ne nii euh, ñenn ñi dégg nañ ko naqarlu ko ndax bërëb ba li nga xamante ne moom lay représenté ñaar ñi nga xamante ne tey teg nañ leen loxo euh, tudd ay ay ay dignitaires religieux naam bu dee waxuñu ñan la mais ñoom nee nañ foofu ca dëkk ba am na si ñoo xam ne dañuy jënd di leen jaayaloog yeneen euh, gis-gis bi nga ci am. Touba dafa am problème insécurité dafa am problème insécurité. bis bu set nga dégg ñu toj fa ay boutique euh, marché ocas la rek même am na am na benn weccikatu xaalis boo xam ne wala xaw ma jaay ko too boo xam ne bëccëg lañu euh, la ñu toj bitigam hmm. donc yooyu tout le temps na ko fay dégg ay ñoo xam ne aussi dañuy dugg ci dëkk ba yor ay 4x4 euh, def seen ñaawteef daw daw génnaat